ñuy dalal tey euh, commissaire à la retraite euh, Boubacar Sadio ñu lay nuyu di la dalal ci Rewmi FM. waaw maa ngi leen di fay bu baax a baax ba pare euh, di leen jaajëfal. Mhm. ci invitation bi nga xam ne jox ngeen ma ko defal ngeen ma ko pour mu mën a wax askan bi ci loo xam ne yaakaar naa ne xëy na dina leen gindi ci lu bari. commissaire ñu waxtaanee waxi politique ak sécurité euh, politique euh, parce que gis nañ ne yaa ngi ciy yëngu depuis un certain temps tey nan nga analyser sphère euh, politique bi si mim réew. waaw sphère politique bi bon maa ngi ciy yëngatu parce que citoyen la mm. souvent damay dégg ay nit di wax je a apolitique man damay def politique. Mmh. politique mooy lan mooy koo xam ne lépp loo xam ne soxal na sa réew si doxalinu réew bi am nga ci loo xam ne war nga ci mën a wax. Mmh. parce que bu dee président de la république la ñun ñoo ko jox suñu baat donc bu defee lu baax ñu ne def na lu baax bu defee loo xam ne safaanoo na ak li nga xam ne moom la ñu yaakaar aussi ñu dénoncé ko loolu mooy politique. Mmh. donc maintenant ku dul def politique mooy koo xam ne xëy na sa yoon newul si mi nu muy doxee. bon actuellement gis nañ ko euh, daanaka euh, ñaari camp la. camp bi camp au pouvoir ñi koy incarné mooy benn bokk yaakaar yaakaar beneen bi camp opposition la ñi koy incarné mooy yeewu askan bi mm. bon euh, coow li juutu na ci parrainage si ci dépôt liste et cetera ba jamono yi daal vraiment situation bi dafa metti tartar boo xam ne bon heureusement que déglu na euh, responsable euh, opposition bi surtout Ousmane Sonko bon et ma jàpp ni effectivement ñu ngi changé doxalin je crois que xëy na euh, bàyyi nañu nopp ci li nga xam ne moom la Sénégalais yi di wax a li nga xam ne moom la Sénégalais yi di bëgg te ñoom aussi euh, je crois que dañ dawal xel aussi. Ah parce que euh, am na ñoo xam ne si biir nguur gi li ñu bëggoon mooy stratégie di chaos. maanaam ñu fexe ba dëkk bi jaxaso jaxaso boo xam ne xëy na dinañu mën a reporter euh, élection yi euh, daxati ko moom bu booba aussi xam nga ñoom lay arrangé. Mm-hmm. waaw te li nga xam ne aussi moom laay wax te mu leer mooy situation bi dëkk bi am na foo xam ne bu fa tolloo suñu force de défense et de sécurité dañuy jël seen responsabilité. Mm-hmm. parce que il sont républicains elles sont républicaines dëkk bi moo leen ñor te duñu bàyyi kenn salfaañe ko. Mm-hmm. bon je crois que nit ki boo analyser ba xam ne xëy na lii bu amee daf lay yàqal nga seetaan ngay doxalee. ñu jàpp ne politique bi daf ñoo xoj loo ci xalaat. waaw mais loolu aussi c'est tout à fait normal actuellement bu ñu politique bi xojul kan moo ñuy xoj parce que ñoom ñoo fi nekk ñoom ñooy dem élection constitution bi moo leen jox doole boobu ñi ñi dañ koy fàtte constitution bi moo ne parti politique yi dañ leen créer pour que effectivement ñu seet nu ñuy wootoo nguur gi pour seet nu ñuy doxalee aussi réew mi donc loolu kenn mënu ci bañ dara bon léegi ñi nga xam ne léegi ñoom ñooy taskatu xabaar yi ak yooyu ñoom ñooy seet léegi nu ñu lan la ñuy tànn est-ce que dañuy tànn di wax ci parce que dafa mel ni loolu la wala aussi di tànn di wax yeneen problème yi parce que yeneen problème aussi opposition da ciy wax mais li ñu bëgg a opposition mun ñu ko yemale ak pouvoir parti au pouvoir opposition wax rek lañ ci mën a am dénoncer rek ak ñaxtu mais ñi nga xam ne xëy na ñoom ñoo yore koom-koom bi ñoo yore koppoor bi ñoo yore doole bi <coughs> mooy pouvoir ñoom ñoo mën a def effectivement saafara problème sénégalais yi waaw bu ñu bu ñu méngalee ñaar yi daal bokkul. commissaire Sadio amoon na jamono jamono amaane na euh, daan nga taxaw euh, yore ordre pour sécuriser ay manifestants tey. Mm-hmm. justement en tant qu'observateur. Euh, ñu di la laajte parce que gis nañ ne manifestation yi bu dee autorisé wu ko jàpp gi dafay bëri li ni mel ndax taxawaayu police la. du euh, police premier responsable bi mooy préfet parce que premier préfet mooy responsable ordre public bi bon li nga xam ne aussi seetlu nañ ko mooy saa yu ñu autorisé benn manifestation jàmm rek moo ci mujje ñi ñi dañuy manifester wax li ñuy wax euh, léegi-léeg sa dañ ciy boole kaf sax bu ñu pare ñu nettoyé bërëb bi ñi ñi ku rek ñibbi sa kër bon souvent nag coow buy am ak euh, dàqante yi si mbedd bi buy am c'est que manifestation mbooloo xam ne dañ ko interdire man nag effectivement doon naa def yenn contribution yi bi ma mujjee sax euh, force de défense et de sécurité ñoom laa doon waxal parce que dama xam li ci biir xam naa seen coono xam naa seen métit xam naa li nga xam ne xëy na liggéey liggéey bu doy waar la nest pas nest pas mm-hmm. donc léegi léegi dama leen di ne kenn mënut parce que am na loo xam ne mënut a ñàkk. Mm-hmm. jàkkaarloog population bi ak force de l'ordre mm-hmm. parce que population bi dafa am ay yelef dafa am ay droit il faut toujours mu koy revendiquer te kenn mënu ko ko police aussi force de défense yi aussi am na loo xam ne aussi seen devoir la mooy fexe daal ba nga xam ne dëkk bi bañ a yëngatu ba ñu yenn yi et cetera donc jàkkaarloo il faut mu am mais li may wax force de sécurité yi. Mm-hmm. force de défense yi muy police gendarmerie surtout parce que ñoom ñooy les éléments de ligne nee leen seen di kenn mënu leen ko tey def waaye nag boo ko defee da ngeen ci def anam boo xam ne da di jox këdd da ngeen di jox cër citoyen bi ngeen jàkkaarloo nit ki boo ko jàppee waxul dara kaasul nga war ko dugal ci oto bi mais jarul nga koy dóor fital mhm. wala boo ko dugalee ci oto bi ba pare mu toog jàpp njàmburam di xaar fu ngeen yóbbu ko police jarul nga koy weq mhm. wala di ko saaga mhm. parce que am na loo xam ne nit ki nga door ko sax moo gën nga saaga ko parce que dafay metti ci xotti du ci mun dara donc ñoom aussi nañu xooree nu ñuy doxalee waaw seen liggéey lañu def kenn mënu leen tere seen liggéey mais nañ ko def si anam boo xam ne dafa rafet parce que ñoom si population yi lañ jógee te ku si nekk sa service bu jeexee ci nii wala bu naa ci si population bi ngay doole fekk yàlla def na xëy na euh, euh, fan yi gàtt ba nga xam ne àggoo retraite si mm. ah, population yi ñoo ñoo lay jëbbal suñu borom boo liggéeyee ba retraite aussi da ngay dellu si population bi yooyu nag da nga koy bàyyi xel nañu fexe daal ba kenn bañ leen tàkkali ko ak population bi daal armée nation la ñuy faral di dégg tey jii ndax genre situation yi dina gën a rataxal euh, comme ni ko ñoom force de défense et de sécurité yi nammee euh, amal benn complicité ak seen askan. waaw cest à que comme ni ma ko waxee rek. Euh, bon complicité euh, bon terme la boo xam ne c'est un peu délicat mais li may wax encore mooy seen diggante mënul mel ni mbuur ak soow waaw parce que kii dafa am ay droit yoo xam ne da koy revendiquer kii aussi dafa am sañ-sañ boo xam ne yoon moo ko ko jox mais toujours comme ni ma koy waxee rek ci citoyen bi ni muy exercer droit am na ci boole aussi di respecte force de défense et de sécurité yi mm-hmm. parce que am na yoon ne yoo xam ne aussi euh, jaaduwul mm-hmm. bon force de défense et de sécurité aussi ni nga xam ne noonu lañu joxale yoon bi na nañu fexe aussi ba respecter askan bi mais léegi loolu état bi moo war a def benn politique boo xam ne bëggoon nañ ko fi def mais antuwul xam nga jëloon nañu fi benn loi boo xam ne dañu ne loi euh, d'orientation sur la sécurité intérieure mm-hmm. boobu loi si wàllu sécurité dañ ci doon dugal citoyen bi imam yi euh, ASC yi ak yooyu yëpp dina mën a tax xëy am na diir yu yoo xam ne ñoom ñëpp dañuy bokk tase di waxtaan waaw xam nga bu boobaa diggante bi day tax. Mm-hmm. mais xam nga fi tool fi euh, dafa gën a yomb si policier bi mu dem si citoyen bi que si citoyen bi ñoo si policier bi Mhm. parce que policier euh, citoyen bi bu ñëw si police bi dafay ànd ak tiitaange dafa am lu muy ragal. Mhm. donc yow mi nga xam ne nag yow yaay policier yow yaa am doole bi yow yaay dalal xelam ne ko mun ngaa ñëw toog ñu bokk waxtaan. Mhm. waaw donc vraiment noonu laa ko gisee question politique la boo xam ne état bi moo ko war a teg en place ah. yan mooy risque euh, manifestation bu ñu euh, gàntal. waaw comme ni ma ko waxee sànq rek manifestation boo xam ne kenn gàntalu ko amul benn coow mais boo xam ne nañ koy gàntal ñi ñi dañuy dañuy fippu. parce que dañuy ne lii sama droit la donc kenn amul droit salfaañe ko surtout ñu jox la euh, ay prétexte yoo xam ne xëy na yow gëmuloo ko donc vraiment encore une fois euh, autorisé bàyyi ñuy manifester moo war a nekk règle bi maanaam moo war a nekk yoon. Mhm. bon léegi na tere bi moom dafa war a nekk loo xam ne lu tubaab di wax mooy exception bi. Mhm. je crois que euh, buñ ko defee rek bon yëf yi dina dina parce que ñi aussi bu ñu manifester après ñibbi dara du ci dikk. Mhm. dara ju ci dëkk parce que manifestation souvent nguur bi ni ñu koy gisee la quoi dañuy yaakaar ni euh, population yi dañ leen yëpp euh, population yi dañ leen a faalewu alors que du loolu nit ki bàyyi ko mu manifester bu manifester ba pare rek mu ñibbi yow nga continuer doxal sa li ngay li dox rek l' essentiel aussi buy manifester am na loo xam ne mu ngi koy ñaxtu. Mm-hmm. da ngay bàyyi xel ci li nga xam ne mu ngi koy ñaxtu. Mm-hmm. waaw fekk loo xam ne euh, dafa jaar ci yoon te war nga ko mën a faj fajar rek bu subaa du ñaxtu. mais fekk na aussi dafay ñaxtu yow tam ngay farantal ay ñaxtoom faalewul ay ñaxtoom aussi day continuer di ñaxtu rek. bu dañuy faral di gis euh, euh, li nga xam ne moom mooy ay débordement ci yenn manifestation yi nga xam ne dañ koo gàntal euh, li ni mel tamit ndax du gàllankoor justement parce que nag léeg-léeg ñu dégg ci sax ay nit yu ci faatu. te doo mën a euh, identifier justement euh, fan ak ci yan loxo la faatoo. waaw débordement bi ni nga ko waxee ñaari fànn la parce que manifestation buy am léegi léegi nga gis ay ñoo xam ne dañ ciy rax par exemple gis nga France gilets jaunes yi bi ñu defee manifestation bu yàgg boobu mm. ñoom police ak préfet ak autorité danoo toog ñu xalaat. ñu tirer les leçons. Mhm. mais je crois que fii defuñu ko wala bu ñu tirer leçons yi sax am na lu des n'est-ce pas donc ñoom dem nañu ba nga xam ne nee ne bu manifestation amee dañuy ràññaale ñi nga xam ne ñooy manifester ak ñi nga xam ne xëy na euh, danañoo pour def ay musiba. Mhm. n'est-ce pas bon pour ñi nga xam ne nag ñooy faatu li ma wax fan yi passé mooy toujours c'est pas normal. Euh, bu ñu jëlee mars bi passé mu am fukki nit ak ñett yoo xam ne faatu nañu te kenn mënu la wax kan moo leen faat mhm. man du ma wax police la du wax ay nit si ci rax ci biir la mhm. mais li nga xam ne mooy wareefu état mhm. mooy dafa war a def enquête ba ñu xam ni euh, diw diw moo ko faat te nee naa même policier sa ak gendarme yi loolu moo leen di arrangé parce que fekk nit ki sa kër musiba am na fool yoo borom kër gi nga taxaw nga fexe ba xam ne diw moo def musiba bi nga mais fekk ni da ngeen di fërëmtal rek euh, di noppi rek du sotti xam nga état bi waxoon na ni day créer commission d' enquête. Mhm. mais commission d' bi ba léegi taxawul. Mhm. waaw loolu manque de respect notoire à la population. waaw commission d' enquête te soxlawuñu woon commission d' enquête gis nga bu ñu waxoon dépp police judiciaire police ak ñu wax section recherche bu gendarmerie ñu def enquête bi dinañ jàpp ñi nga xam ne ñoom ñoo ko def quoi donc commission d' bi euh, man dama jaakaar dama yaakaar ne rek euh, pour Souleymane euh, ñi rek la woon ko vraiment loolu mooy sama loolu mooy sama sentiment. ñu dégg jamono ji ñuy wax force spéciale loolu lan lañ ci mën a jàpp commissaire. force spéciale daal maa ngi koy doog a dégg ci ay civil. force féciale moom am na waaye ci biir police la ci biir gendarmerie la ci biir euh, nu mu tuddati armée waaw am na nu ñu leen di tàggate am na li nga xam ne moom lañ leen dénk comme mission ñooñu ñu naan les forces spéciales mais bi ñuy wax ni fan yi moom euh, xaw na ma jaaxal ko waaw te li ma gis force spéciale boobu waaye wax dëgg yàlla nag ay ay cuune lañ daal bu dee force spéciale la vraiment ay cuune lañ quoi donc li leen dese si xam-xam ak si mënin des na lu bëree bëree bëri donc bon euh, fa laa yem daal parce que police ak gendarmerie am na liggéey boo xam ne dañ koy def te dafa laaj euh, ñu bañ di siwal yenn yi. Mhm. dafa laaj euh, secret dafa laaj confidentialité pour que ñu mën a def seen liggéey correctement quoi waaye force spéciale boo xam ne ay civil la bon man ko man ko doog a daal. justement ay mots yi nga xam ne ñu ngi koy gën di dégg justement jëm ci mbir moomule te it askan wi dinañ ci gën a am njàkkare ak tiitaange mu mel ni rebelle euh, mm. terroriste ak lii di force spéciale euh, commissaire mm. ndax loolu lañ soxla ci ji déedéet soxlawuñu ko c'est que am na ñoo xam ne ñooy tey di koo génne xëy na pour tiital ñi ñi rek la quoi mais li ma gën a métti ci wàllu rebelle dañ ko xoo dañ ko ko dañ ko benn benn benn réew mi quoi mm. waaw nit ñi dem nañu da ba euh, finalement boo nekk boo boo cosaanoo Casamance rek ñu ne rebelle la quoi te loolu kaddu yooyu yàgg na fi jib mais état bi dafa du jël benn précaution dafa du jël benn mesure pour dakkal ko et c'est extrêmement dangereux. n'est-ce pas mm. bon maintenant euh, li si des ay terrorisme et cetera bon wala insurrection damay dégg souvent ñu ne appel à l'insurrection ñi wax loolu xamuñu luy insurrection waaw da koy foowee rek quoi ensuite affaire terroriste euh, day loo xam ne garaaw na garaaw boo xam ne waruñu di ko génne comme seen seen gémmiñ ci anam bu oyof daal n'est-ce pas donc euh, souvent aussi dañuy méngale ak Mali parce que foofu am na terrorisme et cetera damay wax fii nii li nga xam ne moo xew Mali mënoo xew Sénégal pour plusieurs raisons ay raisons historiques ay raisons sociologique ay raisons de typologie ay raisons géographiques ak ay raisons vraiment sociale bon waxuma ni nag euh, terroriste munu munu fi dugg parce que ñoom amul fenn foo xam ne téye na leen mais suñu force de surtout li wax la communauté du renseignement mu ngi liggéey liggéey bu am ayib boo xam ne ñu ngi fànq lu bari bëri te comme ni ma ko waxee rek seen liggéey liggéey secret la boo gisee sax ñuy liggéey liggéey secret aussi parce que dañuy bañ ci def cause population bi ba nga xam ne ñii ñi dañuy tiit parce que bu ñuy cause bu amee rek bu boobaa dëkk bi day jaxasoo bu boobaa ñoom ni ko a xeexee quoi mais situation bi Sénégal foofu. waaw tollagul foofu. tey commissaire Assane Diouf toppee woon nañ ko terroriste. kii di euh, Tunkara moom it euh, euh, toppe woon nañ ko li mel ñuy dégg jamono ji ñuy wax ci ku tudd waa Akhenaton ñoom ñett ñëpp li leen boole ay activistes lañu dañoo nekk réseaux sociaux bi justement seen taxawaay contre état ñu fësal ko lool te li ni mel tamit noo ko jàngatee. waaw mais xam nga réseaux sociaux yi vraiment ñoom aussi am nañ seen liberté ah. souvent du may commenter ñi nga xam ni noonu la ñuy waxee. ku nekk am na nooy waxee am na ñoo xam ne dañ ci ànd xadar am na ñoo xam ne xëy na dañ ciy boole ay saaga am na ñoo xam ne xëy na wax ji gën naa yiw cetera vraiment kooku aussi vraiment aw ma sañ-sañ ne euh, di joxe ay jugement de valeur mais li nga xam ne mooy askaw Assane Diouf bon mais moom effectivement waxoon nañu ko terroriste mais je crois que bi mu ñëwee fii kenn toppee ko affaire terroriste Ousmane Tounkara aussi waxoon nañu ko terroriste mais États-Unis xam nga ñoom aussi dafa am loo xam ne dañ koy gës xool te ñoom ñoo gën ñoo a xam euh, terrorisme te terrorisme bu amee dëkk bu mu lor c'est surtout les États-Unis mais ñoom bu ñu demee ba xool ci biir aussi ñu gis ni que lii vraiment taxawul moo tax ma baat boobu daal bu ñu koy foole am ay éléments yu wóor xam ne bu ñu ko tege si kanamu yoon kenn kenn quoi voilà donc mais nag euh, réseaux sociaux yi nag comme je dis rek ñoom ñëpp am nañ liberté wax la ñuy wax man personnellement daal ànduma ci kuy kuy saaga bon mais kii saaga nag xëy na yow yaa xam sa mer fu mu tol yaa xam sa sa sa déception fu mu tol ba nga xëy na yenn baat yi nga koy wax waaw mais l'essentiel aussi euh, nañ ñi ñi di xool aussi gannaaw saaga li nit ki li muy wax aussi est-ce que dégg nga ci. ñu lay jaajëfal bu baax a baax euh, commissaire à la retraite. ñoo ko bokk Boubacar ñoo ko bokk ñoo ko bokk.